ndeysaan section ngeen Lajoor a ngi noonu ndeysaan di libéré picc yi eh, combat spécial ba nekk noonu ci biir géew bi li dox si diggante Lat Jackson bu Kër Mbaye Faat mi ngi noonu waaw waaw Bébé Jackson tubu tànk Lat Dior waaye mi ngi yor benn sangor bu xonq jëlal ma loolu nee na ko dooma wër cey làmb ñëw na ci biir géew bi ñëw leen ci nee na ko dooma wër mujj na kaa wër loolu la bëggoon te wër na ko te làmb <laughs> nee na ko dama lay wër mu ne ko dooma wër waaye mujj na kaa wër waaw bébé la Jackson a ngi noonu yore benn morso bu xonq di wër ak moom géew bi boobay combat spécial bi ndeysaan ci biir géew bi amiin waay waa présenté ne ñaari mbër yëpp rek dañuy rek laaj rek nekk ñu ngi doon di xool ba xam la joor niin na wala niinut waaye ko si benn mooy yor protestant bi moom Lamine Golo yaa ngi xool joor ma xam nii nag niinut mi ngi noonu ñaari mbër yi abi baa leen woo la joor a ngi noonu diggante la joor ak bébé Jackson boobay combat social bi ndeysaan combat social ba nekk doon ci biir géew bi di dox si diggante Bébé Jackson ak Lat Dior Abdou Ba ngi laaj ay gis ba xam pare nañ nee nañ ko ñu sifflé na génn seen diggante ndeysaan il est vingt heures onze minutes combat social bi Bébé Jackson moo leen féetee waaye Lat Dior moo leen féetee càmmoñ Bébé Jackson Lat kii jóge waaye kii jóge fee ci Kër Mbaye Fall xale yaa ngi noonu ñaari xale yaa ngi noonu ñi nga leetoon jëmee wet la ak Bébé Jackson ndeysaan bu Kër Mbaye ngi noonu ñaari mbër yaa ngi noonu yo combat bi moo waroon doon combat grand combat bi ndeysaan waaye yi toppante léegi Bécaye ak Fourrière ñaari xale yaa ngi noonu ci biir géew bi ndeysaan diggante Bébé Jackson ak Lat Dior di waaj a fàttali rek ndeysaan drapeau rendu hommage Thiatou Moussa Diop attention daw nañ daw nañ jàppante ñoom ñaar daw nañ jàppante Lat Dior jàpp na Bébé Jackson jàpp na eh, ñaari xale yi dañoo jiwaaloo ku ci nekk jàpp nga attention loolu moo nar a xew Bébé Jackson jàpp na Lat Dior jàpp na Bébé Jackson jàpp na Lat Dior jàpp na ñaari xale yaa ngi noonu ndeysaan dañoo tolloo xaw a tolloo doole nag boo xoolee kenn ëppul moroomam xëy na doole ji ci biir lay ëppantee. waaye si taxawaay boo leen gisee ne nga xam ne ñoo la bëgg a def waaye la Dior Lat Dior rasu na ko attention attention mu ngi koy téléphoné ndax mu ngi koy jox wet bi attention caxabal na ko caxabal na ko dina la caxabal ba dina la caxabal ba daan na ndeysaan Koussouba daa ko Koussouba ndeysaan bi nga ko daane daa oo oh, lamb daa dee weer ndeysaan la joo jàpp na boobu di dew ndeysaan bi ma deux defet yi mu teg leen ndeysaan eh, deux defet la teg leen ndeysaan la joo rek ndeysaan Koussouba daa ko Lamine Dakourou ndeysaan Lamine Dakourou am na lu ko metti moom ndeysaan oo oh, ndeysaan Bébé Diassone daan na jëli ba amul benn wérante jëli wérante na tey Bébé ngi noonu ma ngay wax ay supporteram ma ngay wax ay supporteram ndeysaan te dafa duy stade bi laa ilaaha illallaah Bébé ndeysaan Bébé Diassé ngi noonu di dem ndeysaan am na ndam ci kaw Lat Dior ah, a ngi neen ndeysaan di nga encouragé rek nga xam ne làmb nii la daan tey suba ñu daan la ndeysaan waaye nag ñu waajal grand combat di dox si digganteeg Bécaye ak Fourrière ñu ngi waaj grand combat bi ndeysaan Bébé Diassé ngi noonu waaye ma ngay wër ay gàllankoor. <laughs>